dugalee parlement NPP ñoo fa am majority dafay dafay fel yi nga mindset boobu noonu moo ñu moo ñu sonal dañu war a am lu naan political maturity political maturity asin su lu waa ñëwee bu xool ne ok ah Barrow lii la bëgga dama koy dama koy xañ UDP lii la bëgga dama koy xañ ngeen xool nit ñi te that's the problem depuis 2020 it was UDP and NPP 2024 is UDP and NPP it's not about the people it's not about the people because UDP mu ngi naan soo si génnee lii duñ si ànd te loolu that's not the position of the 2.3 million population of the Gambia borom position bu mu nekk di jël nii that's not the position of the 2.3 million people of the Gambia ñooñu poli seen politicien ñoom ñoo jël seen own position soo su naxañee fii nit ñi constitution is NPP and UDP